dama yaakaar ni la loi est là même pour tout le monde elle est générale impersonnelle. Mm-hmm. et nit man damay wax sama xarit yi am ay avocat lañu yaakaar dañuy wax ni profil avocat la ci lay respecte beaucoup. Mm-hmm. mais dafa naa ñu njëkk jàng première année de droit jarul sax nga egg licence ak dégg sax nga gudda mbubb man ñooñu def naa sax ci programme <laughs> li ñu jàng droit mu ñu naan l'acte juridique unilatéral. xam mm-hmm. comme boo def sa testament ça crée des effets droit. c'est la façon qu'affaire contimence contimence bi ko jubi condamné su ko naan identité d'objet de personne de cause yooyu première année laa ko jàng pour gàttal mhm. xam nga mooy lan bu ñettee condamné la yow diw kat dafa rey nit daw ko bu ñu ko condamné contumace bi foofu lay joué mhm. mais diggante bi bu dee moom le juge n'a pas mandat d'arrêt amul mhm. mais juge bi ci boppam bi ñu ko jàppaatee mooy yeneen événement la kon bu ñëw bu doon nañ ko jàpp bu ñëw ne man kat Ousmane Sonko affaire Adji Sarr bi nga xam ne moo tax ñu condamné ma. ñëw naa nii nekk prisonnier. ça c'est une manifestation juridique unilatérale libre et consensuelle. Mhm. qui détermine des effets de droit loolu yi jàngal. mais ku toog bu ñu jàppale beneen délit même bu la defoon na bu yàgg sax kooku c'est pas un problème de connexion non. Mhm. loolu demeewul noonu kon ñooñu di wax mes frères mes mes frères mes confrères mais honnêtement xam naa lu dañ ko wax doon mais nag yaakaar nañu booy défendre ni tamit. oui y' a yoon wala ko parce que yow juge yooyu dañoo jàng comme ñun. Mhm. te contumace boobu ma lay wax. oui mais mais mais le procureur sax même buy def mais mais da koy da koy notifié da koy motivé. Ah.